بين وسعيا سلام لمن خاد لي رويا إلى خير لا خدوى لا الكيد وسعيا سلام وسيتان

waaye taxul bislaam dana ko baax na waaye am na lu ma hmm. ko bokk ci waa Badar kon Badar lu rëy la xam nga waaw doonte moom moom pastéeram sax moo sax bi mu yeggee ba ba ba jub jeewar rek loxo ko saa borom dal di may ba darajay Badar moom ورحمني بشرني الله بأني واحد من أهل بدن خاف مني جاهد يلا بيقلنا ما يكن جواب دار أقوصلت لله مع المختار وأهل بدن أسدي أسدي هما طول شي جوال يلا جوانت بأقوى أهل بدن نيوم دار كون كروك لاشي بوك وأي بستيها موتا مجال مجال لنجي خمي مات سنتوا دول دولو شي يلا moo tax taalibe bu am fa la doo doylu ci Sëñ Tuubaa waaw Sëñ Tuubaa mu mës la doylu ci yàlla boobu doon doylu bi mu yegsee fi ñëpp yem dafiy yem rek taxaw waaye daa egsi ba fi ñëpp yem mu door a xamal saa borom ni ko egsi naa ba fi ñëpp yem waaye damaa bëgg loo xam ne kenn mësu ko am te su ma ko amee kenn dootu ko am ci ak suñu doom xaatimante ak moom mu tamit lu ko yàlla may rek mu ni ko lii baax na waaye ca kanam lii baax na waaye ca kanam lii baax na waaye ca kanam ba yegg yàlla it foo xam ne benn jaam mësu fa ko yegg suñu borom mi dal koy dugal fayee ko dugal ko ci jëmmam a ah, waaw jaawaranil jëmmilu ama jëmsa si ilaa jinnaani bi xëy di madasi dama koy fayee dugal ko ci jëmmam ñu jaxasoo bokk lépp nga xam ne mënoo tàggale yàlla ak Sëriñ Tuubaa mënoo tàggale Sëriñ ak yàlla boo ne yàlla bu la yàlla gërëmee yonent bi gërëm la Sëriñ Tuubaa gërëm la bu la Sëriñ gërëmee yonent bi gërëm la yàlla gërëm la loolu moo tax sëriñ bi moom benn bàlla buy jam rab yëpp waaw ah, moo tax boo yoree sa bal ba am sëñ bi rek am am nga am nga am nga ngërëmul nit ñëpp am nga ngërëmul yàlla am ngërëmul yonente bi am ngërëmul waa Badar am ngërëmul xulafaawul arba am ngërëm yëpp waaw moo tax sëñ bi rek jërewut waaw ah, menn xëyum sëñ Tuubaa moo tax day taxaw taxawaay ku xare Badar waaw ci loolu baaxuk sëñ bi moo tol noonu ak ak lim am ci yàlla ni mu toll tam xam ne bu ca dee fayee loola yi du ko dara xam nga ki nga daa am compte bu boo xam ne wóor na ko ne am mënta jeex te du jeex te bu ci tibboon waa dina bépp tax mu jeex te tabam egg ci loolu it nit dana am dara ci yàlla te ju tabe ñu ngi mel ni nit waaye nag ki xam daa daa daa am lépp ba noppi tabe su ko neexee nga liggéeyal ko fii moo resee fay ñaar fukki junni mu fay la si ñaar fukki moom ne lekkat may naa la million nga xam loolu da koo soob sëriñ bi noonu lay doxee bi nga koy lebal ci sa kattan nga koy lebale soo la dee fay ci kattanam la lay fayee kattanam moo amul fu mu waaw kàttan gi moom amut ni nga xam ne yàlla boo ko dee xëyal ci sa ci sa kàttan li nga man da ngay def bu la yàlla ne julli tisbaar nga dem da nga fi sam xel toll mooy jàpp jàpp ni sell nga kàbbar julli ñaar rakka taaya julli waat ñaar rakka taaya sërmal loolu lay am yàlla man mën na sukkandiku ci baaxu boppam ci kattanam ci tabam ci laabiram ak sag nong yow fay la ca loo xam ni tuyaa bay ku mës a julli man nga koo am ci julli googu sëriñ bi bi ngay jóg danga am ah, man dinaa xëy xëyali Sëñ Tuubaa ca këram gee ñu koy tabaxal ngir sàkk ko fa ngërëmam yow sa pas-pas foofu la sa kattan rek nga a def mooy attanawu mool yanu ko kee attan ab burwet yóbbu ko kee def lee kee def lee loolu nag bu ko ko ba di ko fay moom ci kàttan ko boppam fayee kàttan ko boppam ba ko ci fayee kenn ku ci yéen mën na ci am ay njindi njindi njindi àjjana ba waxuma la moom waaye sañ na ni waa man ku ma sa na aw ñam ñu ni ko man mu ni dugal naa ko àjjana sama wëlëre dugal naa leen àjjana sama yëpp loolu baaxuk suñ moo toll noonu waaw kon lii Pastef la itte la lii nag ba li jar tax ngeen jar a sant sëriñ bi mooy joxañ gi ko sëriñ bi joxañ jaarale ko seen loxo seen yoon néew ci bu woon ak yéen di ñeneen waaye kër gi mënul woon a ñàkk te azal la ko yàlla dogal ni sëriñ Tuubaa ët sàngam mu ndeegee dana am këru xasida ca ca ngaay waaw léegi nag tawféex ji ngeen ci am yéen mooy daje gi mu dajeeg seen jamono ngeen jëf ko loolu mooy tawféex ji waaye mënoon naa dajeeg ñeneen waaye kon yéen ñi mu la ci ah tawféex la ci yéen fi doon lii kenn du leen ko fay ku dul Sëriñ Tuubaa a Muntaxaa mi toog si du ko fay Sëriñ Tuubaa fayal boppam a moom moom barab bi moo ko liggéey yéen la dajal tawféex ngeen liggéey ko loolu la ba muy wax ca ma a wax wax fir li man a bin ahaar rafi wax fir li man am rahum bihi jami wala jamihi man ahaanahum ala binna iha la si fandika tala ba muy jéggalul ñay tabax jumaay Tuubaa entrepreneur ya koy tabax ña ko war a tabax ñay fekkee liggéey ba ña cay ànd ba leen Sëñ Tuubaa di jégalu yàlla di wax na nga leen jégal booba usine bi war a liggéey ciment bi war a liggéey juwaay Tuubaa tubaab ba ko war a liggéey bàyyam sax judduwut booba sëñ bi bu soxlaa sax dana dox ngaabu lañ ko ngaabu lañ koy jëlee ji kooku Tuubaa kooku Tuubaa dara ni comme moom sëñ bi xam ne dana am juma di jégalul ña ko war a tabax di jégalu entrepreneur yi di kon xamoon na nam xamee woon jumaay Tuubaa ba di leen jégalul ñi la xamee woon kër Sëriñ Tuubaa gii ci ngaay ñi la xamee kër Sëriñ Tuubaa ga ca feneen ñi la xamee lu ci ne nag bu yegsee fokk am groupe bu ko yàlla jaarale ci ñoom am xel yi dëppoo ci euh, maire ba joxe ko te du ko sañ a bañ murit ya yàlla xiir sëñ bi dafa leen tawfeex mu dajeeg ñoom kenn koy def ca saw ñax waaye yoonu kenn néew ci lii jëfi Sëriñ Tuubaa la yàlla na leen sëñ bi fay jërë ngeen jëf asalaamaaleykum رئيس الورى ملا خيرنا والخال بني سوم والبغيان أكلت الذي أردى عدوي واجها إلى خيري الحيوان